ñu koy déglu dafa doon wax ne les sénégalais très souvent dañuy bett nit ñi cest à que da leen di xaar fii doo leen fa gis imaginel réew moo xam ne dañuy toog ñu ne yokk nañ courant yokk nañ ndox yokk nañ ceeb yokk nañ diw yokk nañ yokk nañ yokk nañ nga ne population yi kaay leen manifester boo demee place de l'Obélisque doo fekk vingt personnes mm-hmm. ce peuple là capable nga ne leen dañoo tëj Walfadjri ñoom ñëpp ñu jëw fi mm-hmm. di xeex nga ne leen dañoo jàpp Ousmane Sonko ñëpp génn di taal mais ce peuple là mm-hmm. état bu ko bu ko jiite war nga xam ne li ko sonal dëgg mm-hmm. c'est vrai lekk ak naan lu baax la mais la Sénégalais Pape euh, Fatou aime sa liberté mm-hmm. bien sûr le Sénégalais est digne le Sénégalais est parfois même orgueilleux kenn du ko fontoo kenn du ko yeb bëggul injustice bëggul injustice on adore notre liberté tey jii fii ñuy liggéeyee ñun ñii ñëpp ayo ba mën na fee nekk ñu détesté ko et tout mais le jour où ñun ñëpp ñu sentir ne dañ koy teg de l'injustice ça crée de la sympathie. Mm-hmm. Mm-hmm. le Sénégalais est comme ça. Mm-hmm. c'est comme ça ça attire toujours la imprévisible aussi. mënoo xam toujours réaction fu mu koy jëmale ak fu mu koy orienté ak lii lu mu ko jaral. donc mais toujours est que. il y va avec intelligence. waaw loolu mooy loolu mooy dimbali quoi. moo tax les grandes crises souvent day am issue bu bett ñëpp. parce que traversé nañu fi ay moment yoo xam ne. mais bii ku ne woon dinañ ci génn. bii moom ma demb man. Euh, niñ ko traversé. xaw ma kan de mais man moom bett na ma. waaw parce que euh, am na ku ko wax fii démb réew yu bari ci Afrique moyen que ça taal na leen. ñun li Burkina Faso def avec les armes. Mm-hmm. Mali def ko avec les armes. Guinée Conakry def ko avec les armes ñun dañ koo def ak suñu ay ñoo mm-hmm. ñoom Fatou Diouf dañoo yeewu solu ba rafet mm-hmm. tagalu ba rafet mm-hmm. ñii sol bonnet carré sol bonnet carré ñii sol bàyyi laxaat sol bàyyi laxaat ñii sol costume sol costume ñu dox ndànk ñenn ñi daw ñenn ñi rang dem voté régler suñu problème boo xam ne réew yu bari ba mu fa amee pour ñu régler ko il a ñu jël ay armes beneen bi ma ba Sénégal seetlu woon ne depuis 2012 suñu homme politique yi def nañ lu nekk pour yóbbu ñu dans une adversité disons ethnique. Mm-hmm. on a refusé. les sénégalais ont refusé. jekk nañ fi naan affaire nee da ko bandum sénégalais yi boo leen ko waxee mu mel ne lu bon da leen xeeñ bëgguñu koo wax. Mm-hmm. danañ danañ ko nii rek mais bëgguñu koo wax. ñu dem bu mu bi ñu jàppee Ousmane Sonko ñu naan policiers yi dañuy xool ku sant Diedhiou. ku sant mm-hmm. Sonko ku sant nàngam affaire ethnie yooyu. sénégalais yi bañ yenn saa yi ci plateau. Euh, euh, di animé kenn bëgg ko tudd nga ne ko non non non. Mhm. c' est Sénégal. Mhm. bërki Demba Ndiaye benn ministre de la République taxaw ci Ourossogui ville dont il est le maire. Mhm. naan wolof yeeg commerçant yee xaw ma nu mu ko waxee noonu. alpulaar yi fa dëkk. ñoo ne bu ci kenn coow ñun ñoo koy réglé seen bopp. loolu mooy Sénégal en fait. Mm-hmm. je ne sais pas comment, comment il va se réveiller aujourd'hui. ah mais euh, avec la honte du monde c'est Sénégal. c'est un héritage culturel. culturel que nous ont légué nos ancêtres. culturel. te boo xoolee ay Cheikh Ahmadou Bamba ay El Hadj Malick Sy. c'est leur réussite ñoom ils ils ont mm-hmm. te ci pacifiquement ils ont réussi seen mission ak li ñu bëggoon ak seen objectif. Mm-hmm. donc loolu. bu ñu demee ba ne le pays de la teranga c' pas parce que nu sommes des des de militants de la teranga que ñu doon ay yambar du ñu ay yambar de. du mhm. bu ñu waree bañ dañuy bañ. Mhm. bu ñu war mais nag toujours yàlla dafa def ñu ci boole ak intelligence. Mhm. boo xam ne bi moo ñuy permettre ñu sorti de situation très compliquée quoi. donc rend grace à mais loolu loolu moo tax d' ailleurs ñun sénégalais dinañ jote. waaw ba gaañante. mais après tu te rends ki nga gaañ ki sa mbokk la en fait. Mhm. parce que parce que da ngay da ngay da ngay da ngay gis ku far Pastef ak ku far APR. Ah. ñu xeexoo ba gaañante mais ils se rendent après que ni ay dëkkandoo la ñu. ay dëkkandoo la ñoo bokk hmm. famille. ñu bokk même famille même kii kii nekk kii nekk fële. Doudou ak kii. oui. Hmm. ak Ousmane Sonko. Hmm. ñoom ñoo bokk lël. xam nga léegi dafa sacré. par exemple ci nit ñi def leen tout mais finalement dañu mënatuñ leen boole. Mm-hmm. bon militants yi di xeex fi mais finalement ils se sont retrouvés. c'est kii di wax sax ne. Mm-hmm. il faut qu'on libère Ousmane Sonko. Doudou Ka mm-hmm. il a été parmi les premiers à parler de la libération de Ousmane Sonko. donc loolu mooy woon dafa am lu ñu boole. ce qui nous unit. plus fort. et plus grand que ce qui divise. Mm c'est ça. xamal ma absolument donc loolu ciment boobu dañ ko fondation bu dañ ko war a préserver. Mhm. parce que peuple loolu la quoi ay diversité la mais diversité yëpp. c'est la force de ba sunu devise daf ñu ko woon. un peuple un but une foi. tout à fait donc ça li ñu boole moo ëpp liñ donc. mais mais bien sûr mais heureusement. Mhm. bon bien vrai nag des fois nga gis ay nit ñoo xam ne dañuy surfer sur les vagues de l'ethnicisme wala sur le vagues de la mooy la amul argument rek mais mais du duñu sori. du ñu sori. parce que danga dul am da nga am ku koy da dul am koo xam ne. dina la jàppale pour nga prospérer. Mm-hmm. bien sûr finalement tu es obligé. Mm-hmm. nga teg ko ndànk. waaw euh, il se trouve également mm-hmm. que euh, Sénégal xam nga souvent dañ naan euh, ñi ñu jiite. xam-xam bi am nañ ko nangam ak nangam mais man pour man xam-xam bi ëpp solo pour jiite Sénégal <coughs> mooy ma ba xam ban réew nga jiite. la sociologie. exactement xam l'histoire de ce pays. Mm-hmm. Sénégal jërul remonter fu sori. soo xamee tuuti Sénégal xam ne bi ñu indépendant wee président bi ñu njëkk a jiite chrétien la. Mm-hmm. te pourtant Senghor ses plus grands soutiens c'était Serigne Falilou Mbacké. ak mm-hmm. Serigne Babacar Sy. c'est vrai ce sont des te ñooñu te ñooñu ñooñu li leen gënoon a soxal. Ah c'est pas de savoir Senghor chrétien la wala leneen. ñu dañu mm-hmm. jàppoon simplement que ni Senghor c'est un président boo xam ne mën na jiite Sénégal. waaw mm-hmm. ah, pour la mm-hmm. petite histoire nga may foofu tuuti. parce que le 20 mars. xam nga 2000. Abdoulaye Wade dafa gagné kii nu mu tudd élection yi. dafa xëy dem Touba. à 22 heures ça m'a trouvé là-bas mhm. au domicile de sëñ kii sëñ Mourtala. Mhm. te yàlla te te nekkatu fi. Mhm. Ablaye Wade ne ko man en 1963. j'étais venu ici avec mon père en tant que jóge France. ñëw ziare si sëñ Fallou. ma ne ko man sam papa ne sëñ Fallou damaa bëgg. nga dimb nga nga nga fexe ba sama doom ji. Mhm. mu nekk président réew mi. Mhm. mu ne ko nag dafa am koo xam ne dama lëkkaloog moom. mooy Léopold Sédar Senghor te pareeguma ci moom. Mhm. dina fi defaat ab diir. dina fi defaat ab diir. mais bu soobee yàlla. yow di nga nekk kii nu mu tudd di nga nekk président de la république ça c' était amee. man Ablaye wax loolu maa taxaw ni Ablaye Wade wax ko le lendemain bi mu jëlee kii bi en 2000 seet si sëñ Mourtala. oui le fils cadet de l' époque de eh, kii soo demee soo demee dans le. donc ça veut dire que li ngay wax nii rek sëñ Fallou wëllëri gi mu amoon Senghor. c' était clair même il avait une formule magique. Senghor seng ca kaw donc la toiture elle est te gis nga euh, xam nga souvent dañuy wax ne. Euh, euh, <laughs> ba dem ba dañuy wax ne dañuy wax ne lu bees amu fi. waaw gis nga lii xale yi di tudd waa Pastef yi naan projet bi projet bi projet bi. Hmm. mais sëñ Fallou dafa amoon un projet. Hmm. son projet c'était la grande mosquée de Touba. Hmm. Senghor jël. engagement. waaw ne ko dina ko accompagner dans la construction de ce projet là muy la grande mosquée de Touba. son projet c' était que Touba village la. bu soxla ndox bënn ay forage par exemple. Mhm. Senghor accompagner ko ci bënn forage yooyu. loolu moo lié woon en fait ces hommes là ak les les les hommes beneen bi pour l'histoire politique du Sénégal. Mhm. man dama wax fii ba ne euh, bi Macky Sall falee ay magistrats yu bari. cour d'appel. Mm. conseil constitutionnel euh, cour suprême nga xam ne ñoo ñu bari dañoo jàppoon ne ñooñu mu fal ñooñu. ñooy ñi koy dimbali pour mu wuti un troisième mandat. dina se boo xam yéen a ngi fàttaliku loolu. Mm. maam Bira Waj disait à l'époque que ne mm. xool ñëpp ñi nga xam ne ñoo war a interveni dans le processus électoral. mu jël fa teg fa ñoo xam ne ñoom la wóolu. Mm-hmm. yaa ngi dégg ñoom la ah, wóolu. boobu Macky Sall mi ngi xelam mi ngi nekkoon ci wuti un troisième mandat. Mm-hmm. man man dama doon wax ne man li ma gëm. mooy Macky Sall un président sortant qui n'est pas sûr d'être candidat il arrivera un moment boo xam ne les magistrats yooyu dañuy jouer carte sur table ils vont dire quelque chose très simple te loolu un haut magistrat moo ma ko wax mu ne ma Moustapha est-ce que yaakaar nga ne man dinaa def sama carrière fi ma jaar yëpp ba agsi vers la fin de la de ma carrière retraite laa jëm dans trois ou quatre ans est-ce que yaakaar nga ne li ma defoon yëpp dinaa ko yàq pour pour lii ko def Et il y a beaucoup de magistrats comme ça, qui te disent que ni ñun on a fait une belle carrière. kenn dégguñu ci benn coow. kenn dégguñu ci benn ay kenn jiñuñu benn scandale. Est-ce que pour les beaux yeux président qui est en fin de mandat dina tax li ñu defoon yëpp ñu yàq ko. ça pose un sérieux problème mooy quand bu ñu yëkkatee l'affaire de la corruption des magistrats là ñu bari da nga koy dégg beneen bi mooy la justice sénégalaise la ñuy xalab mais bari na ay ay yu état wu Sénégal nekk ñu génne ko ci. ma mhm. Mademba yaa ngi fàttaliku les conditions dans lesquelles maître Babacar Seye est mort. waaw dañ doon xëccoo élection. Mhm. kan moo kan moo gagné kan moo gagnewul kuy prononcer résultat ak yooyu. Mhm. Kéba Mbaye démissionné maître Babacar Seye qui était vice-président du conseil conseil war ko remplacer ñu faat ko fii ci corniche <laughs> loolu yaa 94 la. waaw Mamadou Dia Mamadou Dia. bi mu amee problème ak Senghor. ba ñu jàpp ko yóbbu ko haute de justice war koo àtte. Mm-hmm. boobu Ousmane Camara moo doon procureur général yàlla na ko yàlla guddal fanam wéral ko mi ngi fii ci Dakar Ousmane Camara. Mm-hmm. moo mi ba léegi mi ngi Dakar. Mm-hmm. moo doon procureur général. keroog moom moo bind ci livre am que bi ñu ko laajee ne ko ñaata at lay sàkk pour ñu tëj ko ba léegi waxul nañ ko tëj ba léegi. waxul nañ ko tëj nàngam. Ousmane Camara disait d'ailleurs que le seul problème de Dia hmm. c'est que il aime trop le Sénégal et Dia hmm. pensait que pour aimer le Sénégal il faut aimer Mamadou Dia hmm. bo loolu bokk na ci li nga xam ne moo perdre Mamadou ja mais ñooñu ñi ngi Sénégal gii soo bëggee jiite Sénégal ay magistrats ne fi di di di continuer cette culture la des gens de l' administration nekk fi di continuer cette culture là mais soo xamul set histoire politique du Sénégal mais da ngay ne di tël tël di wax rek yaakaar ne yow tout possible alors que tout n' est pas possible hmm. la preuve que tout n' pas possible Fatou hmm. le conseil constitutionnel bi nga xam ne ñëpp moom lañ gëmoon ne lu Macky Sall bëgg ci réew moom moo koy yombal mais le conseil constitutionnel tey bu ñu fii moom moom moo tax ah, wala bu bëri il a hmm. déjoué de l' état le conseil euh, constitutionnel boo seetaanee politiciens yii ak peuple sénégalais ñu taal réew mi. Mhm. parce que le peuple sénégalais dafa décider ne dañuy dem élection par force. les les politiques ne fi di yox yox yi naan dañuy dem ak duñ dem ak dañuy dàq ak duñ dàq ak dem mm. assemblée nationale complot woote ne euh, dañuy dem ba 15 décembre. le conseil conseil la nee taxaw leen. Mm-hmm. on arrête ça un toppale électoral un toppale électoral. <laughs> joué nañ fi rôle bu grandiose en tout cas. en nañ sant yàlla daal. amee ah, absolument. <laughs> dañu am peuple boo xam ne mhm. dafa kii quoi nu mu tuddee euh, euh, boo xam ne ku koy yem rek da nga koo xamul Ibrahima Ndiaye Fatou nee na il a les mhm. résultats globaux quinze communes du département de Thiès. je ne sais pas nag ba xam. Mhm. bu mënee ñëwaat parce que waxoon na mu ngi conseil euh, tribunal régional bi na a les résultats. léegi bu ñuy mën nañ ko jël waaw su fekkee mën nañ ko woo ci ginnaaw. Régie Penda bu fekkee mën ngeen xool Ibrahima Ndiaye. Ayoba. pour Sénégal nouveau et émergent lan la ñu war def lan lañu euh, ñu war a changer. d' abord euh, li ñuy war a njëkk a pour man. Mhm. ci régime bi di ñëw mooy l' de droit.